man nag ñaata temps moo ko tënk exactement wax dëgg yàlla xaw ma ko mais euh, pour man tamit dafa am cas particulier boo xam ne dafa am te mosu fi am au Sénégal noo gis gouvernement boo xam ne am na fi te muy dem mu war a dem ñu fal premier ministre am ñu war a dem assemblée nationale mais euh, ñu gis ni assemblée bi dafa am une cohabitation bi ñu doon wax sax amatu fa léegi léegi gis na ni dafa am benn parti boo xam ne mooy parti majoritaire boo xam ne moom moo nekk foofu daanaka moom moo dëxañu lépp gis na à l'instar keroog démb rek euh, yeewi askan seen conférence de presse bi hmm. dégg nga lan doon wax ban hmm. askan wi nañuy dem di xool lan moo xew assemblée nationale hmm. parce que bari na ci ay dossiers yoo xam ne ñu ngi koy yóbbu ñu ngi koy ñu ngi koy teg assemblée nationale nekk dañ leen i xoqatal dañ leen jaay doole kon mu mel leen doon wax gis nañ fi Abdou Mbow dafa njëkkoon menacé bi ñuy wax fale Ousmane Sonko premier ministre rek mu bu ñëwee bu moytuwul ñu def motion de censure euh, ci li nga xam na Ousmane a a a euh, may ko a nationale septembre ak euh, bu nu commencé war a ubbiwaat li nga xam ne moom mooy session plénière day nek diir bu gatt lay don est-ce que diir boobu meun nañ fi dem ay élection président élection législative mm. pour meuna falat mm. assemblée mm. nationale yooyu yëpp ay interrogation la yoo ne peut-être ngor gi mu ngi koy bàyyi xel xeyna motax amal ay yenn mais pour man kii ci ne lat sax ñu lay fal moy euh, biñu fal euh, président de la République don ko fal ci base programme man gëwuma sénégalais nan amunu programme ak projet bi moy lan projet bi moy le programme bi nga xam mom lañ ñi mom lañ mais est-ce que lolu du may occasion li nga que di cette nouvelle opposition pour ñu mën wax ni que ni est-ce que concrètement ans Ousmane Sonko am na loo xam ne war na ko mën a teg si table bi. pour war a mën a dérouler ces cinq ans. man euh, man naa ko xam nga Ousmane Sonko bi muy ñëw bi muy ñëw dafa amoon un rêve boo xam ne daf ñu ko vendroon rêve boobu bu ci taxawee. wax li nga xamee ne moom la doon wax ba sénégalais yu bari adhéré ci li nga xamee ne moom mooy ci politique am defe naa ne bu ko demee yóbbu assemblée national mën na jàll léegi nag dafa dem assemble national fekk fa ñoo xam ne am na ñoom tamit dooley dissoudre le gouvernement euh, nu ma tuddati euh, mm. lancer sociaux de mensure de censure pour mën a euh, assemblée kii euh, gouvernement bob ñu dissoudre ko lool tamit problème la te Ousmane Sonko amana xeyna amna fo xamné foo bëgg na fa yóbbu réew mi wala ci bëggul euh, dem ci te mu wër ko ni dafa désarmé wu gis nañu kaaw yi nga. xam ne mais suñu demee suñ ko dugalee motion de censure gouvernement bi mu ne ko reconduire. non mën nañ ko reconduire certes. mais loolu humiliation la humiliation la. ok loolu. après buñ ko cest à dañuy dem ci des ay lendemain yoo xam ne lendemain sans fin la wala ay lendemain yoo xam ne véritablement dafay xaw dafay xaw a lëndëm trop trop trop trop ci bopp nit ñi hmm. ñu pare dissoudre kii ñu recondraat ki ñu war a defaraat beneen gouvernement yooyu yëpp lenteur te mu am ay urgence yoo xam ne ba léegi sénégalais ñu ngi toog di yooxu mais lii tamit bokk si lenteur yi le fait que bañ moom lenteur la wax dëgg yàlla lenteur la mais xëy na am na lu muy calculer man mënuma ko xaw ma dëgg-dëgg lan moo nekk ci boppam xaw ma tamit ban moo ko tënk hmm, tout allez allez mais li euh, premier ministre en tout cas war assemblée nationale joxe orientation politique am vision politique ni la euh, am envie def la programme ak ak alors aujourd'hui le débat est à quel niveau exactement ñu gis ni Souleymane Diop le débat est élevé amna ñoo ñi ni même sax nationale su demee di nga fa tegal ay débat aji Sarr ak débat Mame Mbaye comme ni ko Bougane waxee mm, que ni du euh, connaître que ni na ni euh, euh, narkat nga et tant d'autres et tant d'autres alors le débat peut-être ñi ngi tit ni su demee selon assemblée nationale mu xawa a baissé vu que ñom ñofa am majorité exactement voilà xëy na man lool la jàpp peut-être international dina ko dina ko dina ko image am image am image am du du te te na ni sénégalais yëpp xam na ne bu demee foofu noonu euh, gars yi euh, yooyu dinañ ko soulever waat loolu moom bettul kenn moom xëy na sax euh, moom war na préparer en conséquence de cause heureusement jaar na assemblée nationale fekkente fa woon ak ñu bari ñoo xam ne peut-être ñu ngi tey ji sax ñu ngi waat assemblée nationale mu am lu mu fa jànkontewul te il doit s'attendre au pire xam ne bu demaatee assemblée nationale lu gën a tar li mu fa doon mm. moo ko fay mm. parce que bii dafa ñëw posture premier ministre donc yooyu yëpp ay interrogation la yoo xam ne en tout cas mais war na am euh, comme ni ma koy waxee boo xasee jeg ba dem euh, dugg ci géew politique gi war nga am des dépôts ci pour yu bari nga mën koo dékku te jàpp naa ne war na koo mën a ñun leen soxla instant bi nak dëgg-dëgg nak moy mooy gouvernement qui vient de s'installer exactement ñu bugg ko euh, daniel waaw problème bi lool la mais est-ce que daniel xam nga bu ñu daniel le gouvernement bi comme ni nga doon doxe président amna na mu euh, am na ay prérogative mm, bu reconduiraat ko mais yooyu yëpp day nekk ay humiliation ay kiitam bu dématé encore assemblée nationale dafa déclaration politique am lan la fa fekk mm. entre temps peut-être dina fekk peut-être gouvernement parce que ñom ñëpp génnoon na ni bu défé lool président de la république ak gouvernement dinañ jël jël seen i responsabilité euh, te responsabilité bi du dara lu dul di dissoudre assemblée national est-ce que opposition bu genre opposition bi nu bëgg dugg nii ak euh, politique bi nga xamee ne ñu bari dañ ko baniroon mm. muy yàqante muy xastante muy yenn muy yenn yi est du loolu la nar a gisaat assemblée nationale wala est du ci euh, juré yi nga xam ne gis nañ fi Bougane par exemple ses sorties mm. ñu bari dañu jugé ne ay sorties yoo xam ne yu doy waar la def dafa génn attaqué directement euh, mm. Ousmane Sonko def ay attaque personnelle ci digganteem est-ce warul mën a am di critiquer ci li nga xam ne mooy gestion Ousmane Sonko peut ñu ngi wax ci affaire presse Ousmane ko génn ne patron de presse yi ay ay daf leen kii de corruption ay délinquant la rek yu demee noonu voilà yooyu yëpp mu mu mu mu bi mu paree moom mu tontu xëy na at jël ko personnellement mais est-ce que foofu la waroon dëgg en tout cas politique alors d'après les explications justement de Yévi Askan euh, par rapport à le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ñom ne tient plus compte du poste de premier ministre depuis la dernière modification en 2019 et comme Conséquence directe de ce manquement, les députés de Yévi Askan évoquent l'impossibilité d'une déclaration de politique générale. Moi, madame qui dafa vous woon exactement le poste du PEM mm-hmm. mm-hmm. ni ki li que modi 2019 depuis lors nak moral bobu de poste assemblée nationale tenu tout en compte euh, avant 2019 il avait 90 jours pour daal def déclaration de politique générale exactement. Euh, depuis sa suppression euh, de hmm. depuis 2019 2024 amaatuñu fi premier ministre. Hmm. après Gennan, na ci kii ba koy def dafa cas particulier bu le Macky Sall dindi ko. Hmm. mooy Covid 19 a fi nekkoon. gaawal voilà fast track fast track. moo taxoon mu dindi ko mais après euh, gisaat nañ fi ay premier ministre premier ministre bi mujj ci régime euh, président Macky Sall mooy euh, nu ti tuddati Sidiki Kaba Sidiki Kaba Sidiki Kaba kon est-ce que amuñu am am am am amaatuñu ay premier ministre ay PM ay PM Amadou Ba est-ce que après bi ñu ko reconnaître demul woon def déclaration politique générale mm, mm. ci assemblée nationale mm, donc pour man nekkatul obligation depuis 2019 nekkatul obligation quand même non pour man du lol du ki c'est-à-dire que constitution bi amul benen modification bo xamné modifier nañ la constitution si euh, on l'a modifié dem wane nañ ko les députés de yew Askan Wi non en tout cas ah. na gëna lèr ci bop askan wi ak sama bop man mi man gisatuma lo xamné modification exacte la boo xamné ne na ni depuis 2019 ba légui 2019 ban ko dindé après reconduire na le euh, premier ministre bi fi nekkoon di Amadou Ba mom jotoon dem assemblée nationale de sa déclaration. alors donc euh, le débat euh, fu mu toll se veut formel le débat autour de la de déclaration de politique générale bu Sonko jàppale ni itam fu les partisans d'Ousmane Sonko ñom nee ko rien n'oblige Ousmane Sonko pour mu def sa déclaration de politique générale sur li nga xamné que le 30 pour Ayib Daffé ak une armée comme xam ni qui ñu nekk ce daanaka Yewwi ajouté que ni euh, euh, devant cette 14e législature euh, il est impossible de faire une déclaration de politique générale parce que si la question de la confiance avait été posée ou par rapport à cette motion de censure alors nous jàpp nañ ni duñu waxtaan wala kon duñu nekk di neexal par rapport nous venait de déposé ou pas motion de censure parce que dañoo daal di ni fofu leen député Benno daal di li nga xam ne que moo di leen di xaar euh, fa leen leen jàpp. mais est-ce euh, que déposer déposer motion de censure est-ce que véritablement day wane ne dafa war a de motion de censure bi day jàll. dañu ngi wax ne ñun xëy na am assemblée nationale euh, gis nga ñaar ñaar ñoom ñaar ñëpp ñoo am intérêt. Hmm. assemblée nationale l'opposition dafa am intérêt wu conserver l'assemblée nationale. Hmm. actuellement l'opposition bi dafa am intérêt wu parce que foofu rek la am majorité. Hmm. assemblée nationale kese su fekkente ni eh, ci yi nga xam ne moom mooy eh, kii municipal yi eh, daanaka les grandes toutes les grandes villes li nga xam ne moom mooy ñi fi nekkoon opposition tey jii ñu nekk ci kii bi ñoom ñoo ko gañe donc opposition fenn doo nga la amee doole dëgg-dëgg. moy assemblée nationale Ta assemblée nationale bis bu ko opposition bi xamna ni ñom bu ñu ñaké loolu su fekkente ni dem nañ lancer motion de censure oui mën na mm. Mm. d'accord mais après bu ñu septembre le président de la république décidé dissoudre li nga xam ne moom assemblée nationale ñu wara démat est-ce que ñom wóor na leen ne bu ñu demaatee élection euh, législative dañuy gañewaat assemblée nationale wóoru leen parce que dafa am lo xamné dafa dafa euh, décidé euh, ñan opposition bi opposition non opposition wóoru leen

alors nous gis nii ki nga xam ne moo di Adji Mergane Kanouté nous na saisir exactement euh, le conseil constitutionnel ndax jàpp nañ ki nga xam ne moo Ousmane Sonko mi hors la loi exactement alors cette sortie d'Adji quand nous allons dans le sens du bi le conseil constitutionnel pourrait intervenir. waaye ah je trouve normal parce que conseil constitutionnel dañuy wax ne c'est la mère des lois. Hmm. moom moo jiite lépp loo xam ne moom mooy ëmb moom la ñuy wax sax mooy ëmb charte ndey réew mi en tout cas euh, kon nag bu fekkente ni jàpp na ne am na koo xam ne jalgati na wala benn jalgati ci yenn yoo xam ne ci ay loi la war na nañ ko mën a saisir moom tamit mu def liggéeyam comme ni mu ko defee woon ci président de présidentielle yi nga xam ne jot na fi jàll moom mu indiqué waat le président de la république. est ku fal itam bëgg nañu xam dëgg-dëgg bu la tabé premier ministre ñu xam yow sa gis-gis ci réew mi nan la. fan nga bëgg yow bu réew mi sa doxalin ci réew mi. mais d'après vos explications tout à l'heure que ni le débat peut-être sera bas et euh, tant d'autres. non loolu mom loolu mom loolu xam nañ ko ñun. est-ce que duñ jox raison Ousmane Sonko. mosuñu que une assemblée non mais euh, du raison pour mom mu abstenir. Hmm. parce que ñun mosuñu am une assemblée nationale responsable. loolu moom ñëpp xam nañ ko fii Sénégal assemblée nationale bu ñu fi demee dàggasante xastante ñenn ñi tëdd di nelaw ñu ni voté pour ki ñu daal di jug voté <laughs> loolu la nu mas a am comme assemblée national ak gi nga député bu génn ne man député diw laa du wax député euh, assemblée nationale la du wax député du peuple la mais day génn ne man député diw laa diw moo ma tabb te gëmul ne askan wi moo ko fal ñun yooyu la nu mas a gis est-ce que loolu rupture dina am ab bi euh, ci assemblée nationale est-ce que dinañ fekk assemblée nationale bu responsable gëmu comme ni wax war na mën a préparer wu suffisamment euh, ca muy fekk ji assemblée nationale est-ce que loolu rek moo war a tax bu fekkente ne am na lu wóor loo xam ne orient euh, am na euh, programme bu wóor boo xam ne bu ko tegee biir assemblée nationale pour man du problème wóoloo nit boo wóoloo ca li nga gëm dëgg-dëgg nga wóol na programme bi wax dëgg yàlla buñ ko tegee amul fu ñu ko mën a teg ñu nga bëgg sa réew ñu xam moom mooy euh, ci euh, gouvernement googoo moo loolu pour man am na nit ñoo xam ne même su fekkee ne opposition la ay opposition responsable lañu war a dem mais su nekkee nii